Euh, waaw comme ni nga ko waxee rek euh, point bu jiitu ci euh, ndaje bi gouverneur woote tey fii ci région de Thiès dafa di waxtaan ci mbiru campagne bi ñu génn muy campagne 2020 2021. comme ni ma ko waxee sama njëlbeenu kàddu rek c'est vrai que dafa yegsi ci période bi nga xam ni dafa ñaari phénomènes yoo xam ni pratiquement ci àdduna bi yëpp la lëmbee muy maanaam phénomène soppite mi ñu am ci jaww yi mooy changement climatique li ñuy wax ci tubaab changement climatique. beneen bi aussi mooy li nga xam ni aussi defe naa ñëpp dañ koy dund actuellement dans le monde mooy mbas mi. Euh, ñaari phénomènes yooyu c'est vrai que état bi jot na jël ay mesures pour essayer xool nan la ñuy atténuer maanaam euh, phénomènes yooyu seen impact ci campagne agricole bi loolu moo tax dafa amoon un certain nombre de programmes ku ñuy wax un programme spéciaux benn programme bi ñi ngi ko jagleeloon par exemple maanaam ñambi bi comme ni ngeen ko xamee Thiès mooy première région sur les quatorze régions bi nga xam ni fi la ñu ëpp li ñuy béy ci wàllu ñambi euh, donc programme boobu actuellement dañoo ñëwoon pour gën ko dooleel moo taxoon ñu waxtaan ci bu baax te am nañ ci ay jéego yu am solo yoo xam ni gis nañ ko ci programme boobu beneen programme spécial bi aussi mooy programme national d'autosuffisance en riz maanaam fexe ba dooleel mbayu ceeb xam ngeen ñaari campagne yi passé daanaka kenn bayul woon ceeb ci région de Thiès mais ren dooraat nañ ko parce que dafa am ay xeetu euh, variété yoo xam ni mun nañ ko ji maanaam ceeb yooyu fépp foo xam ne dañ fay ji lu demee ni ki euh, euh, basi lu demee ni ki mboq demee ni ki dugub donc loolu dafa di loo xam ne aussi def nañ ci jéegu boo xam ne am na solo te lépp lu ñu waroon yóbbu ci fànn boobu aussi jot na ñëw à temps léegi nag c'est vrai que bu ñuy wax campagne bi en tant que tel dafa am loo xam ni dafa am solo maanaam mooy permettre ñu jànkoonteel bu baax a baax changement climatique parce que dañoo yeeg seetlu ni nawet bi day teel a day yéex a commencé teel a jeex donc li ci gën a am solo mooy que li nga xam ne dafay jëm ci intrants yi maanaam surtout jiw yi ñu fexe ba mu teel yegg ci baykat bi bu ko defee baykat bi bu ndox laalee suuf rek mu mun a maanaam ji pour mun a dérouler campagne am de manière correcte ci fànn boobu wax dëgg yàlla euh, bépp xeetu pepp boo xam waroon na fi ñëw ak gerte gi euh, jot na ñëw à temps te tout de mise en place yi aussi pratiquement day varier entre quatre-vingt-quinze et cent pour cent donc loolu dañ koy rafetlu encore une fois pour engrais yi muy beneen xeetu intrant bi foofu aussi euh, ñeenti formule yi waroon ñëw daanaka ñetti yëpp jot nañ ñëw à temps ak à des taux yoo xam ni vraiment ñu ngi koy rafetlu di remercier fournisseurs ak état bi ci fànn boobu mais benn xeetu engrais bi muy triple 15 bi moom lañ jagleel lépp jëm ci wàllu mboq dafa xaw a yéex a ñëw donc loolu dafa di gàllankoor boo xam ne aussi jot nañ ko nemmeeku ci mise en place engrais yi pour ren euh, euh, am na loo xam ne aussi jot nañ ko yeggali am na lu toll ci juróom benn tracteur ci juróom-ñeent yi ñëw yoo xam ne jot nañ ko distribuer aussi ci campagne bi mais comme ni ñu koy waxee toujours rek campagne agricole du am ndox bu bëri rek moom moo koy maanaam indi réussite bi li ci gën a am solo mooy euh, que ñu fexe ba lépp li nga xam ne dafa war a dem jumtukaay naam jëm ci intraté la ñëw c'est vrai mais également aussi li nga xam ne war nañ ko def sexe ba changement climatique yi ñuy vivre maanaam jong li ñuy jànkonteel ci wàlla jaww ji changement climatique yi ñu fexe ba mun koo dékku ci fànn boobu wax dëgg yàlla am na ay jéego yu am solo yoo xam jot nañ ko def parce que wax dëgg yàlla euh, bi ñu xoolee taw bi c'est vrai que ni ñu ko yaakaare woon noonu la dikkee de telle sorte que conseils yi ñu doon jox baykat yi fexe nañ ba adapté yu am maanaam loo xam ni vraiment euh, mun nañ ko rafetlu encore une fois ci wàllu bépp xeetu bay boo xam ñu ngi koy bay ci région de Thiès léegi nag c'est vrai que résultat définitif yi euh, résultat globe national yi am nañ ko de manière globale comme ni ñu ci waa joto waxtaan ci ministère bi léegi waa DAPSA ñoo ñu waroon yónnee résultats yi nga xam ne am nañ ko région bu nekk mais tendance ñi jot ci région bi day wane nii lu ci bëri ci goxa a goxaat yi yoo xam ne ren wax dëgg yàlla bu ñu tëkkalee ren ak daaw dina am yokkute ci wàll li nga xam ne yaakaar nañ ko mais am na ci ay poche ay point yoo xam ni foofu xëy na yaakaar nañ mu am de petite baisse par rapport ak production yi de toute façon ça c'est situation boo xam ni fii ak diir dinañ mun a am globalement lan situation globale au niveau des différentes productions et différentes spéculations au niveau de la région. waaw c'est vrai que euh, yaakaar naa ni ren campagne euh, jaayu gerte bi teel na commencé ñu koy la encore une fois prix plancher bi aussi jot nañ ko yokk parce que 250 francs la le kilogramme mais li ñu remarqué mooy euh, am na fanweeru point ak juróom-ñett yoo xam ni. ubbi nañ ko ci région de Thiès ci njëlbeen bi parce que damay rappeler nag saignant bu ñu dawee ab diir dafay changer yokk maanaam point de collect yi mais suñ doon xayma maanaam suñu wàllu bopp ñun 38 point yooyu ñu am au niveau la région dañuy yàgg dañuy gis ni dafa néew parce que fi ñu béy gerte yaatu na ci région bi bu doon suñu sago bépp zone boo xam ne béykat mu nga fa mu fexe ba point de collecte jege ko mu mun a maanaam jaay gerteem te du am yenn coono yi li ñu njëkk a recommandé mooy que Sénat yokk point de collecte officiels yooyu pour que point yi gën a jege béykat yi loolu c'est vrai fukk ak ñeenti opérateur ñoo nekk actuellement activité li ñu remarqué aussi mooy fanweeru point yow juróom-ñett yi nekk ci région bi euh, lu toll fukk ak juróom ñu ngi fonctionner actuellement donc ce qui am na ci yoo xam ni dañuy sooxe fi mu nekk nii donc donc encore une fois li ñuy wax noonu toujours rek mooy am na ay raisons yu bëri yoo xam mën na expliquer problème yooyu mais du tee ñun li ñu wàll gis ci wàllu bopp te ñu koy maanaam recommandé waa Sénat mooy nañu fexe ba yokk point de collecte yi c'est vrai fexe ba point de collecte yi gën a jege baykat yi bu ko defee dina mën a jaay gerte ci dal euh, ci nu mu ko bëggee faayu ko bëggee incha allah. waaw c'est vrai que région de Thiès en ce qui nous concerne ñetti xeetu collecte la. benn bi mooy jiw bi nga xam mooy jiw bu mucc ayib muy semence certifiée beneen bi mooy semence écrémée beneen jiw bi ñëw mais ñetteel bi moom mooy huilerie yi maanaam li nga xam dañ koy def pour nal ko pour am diwlin ak huile yi yaakaar naa ni suñu xayma loolu moo gën a sooxe actuellement dans la région te defe naa loolu aussi ci Sénégal yépp la euh, c'est vrai que huile yi li ñuy jënd tey 250 francs le kilogramme de telle sorte que comme am na yeneen ay opérateurs yi ñëw di proposer lu ëpp loolu bu ko defee baykat bi day pen day dem ci maanaam opérateur yi nga xam dañuy offrir lu ëpp 250 te loolu aussi xel mun na ko nangu loolu moo tax actuellement nag je pense que huileries yi collecte bi xaw na sooxe ci fànn boobu mais yaakaar naa ne ak euh, mesures yi nga xam ne ak instructions yi nga xam jot nañ ko ci conseil des ministres bi passé acteurs yi dañ daje pour jéem a xool nan la ñuy maanaam li nga xam ne sooxe na ci wàllu huileries yi ci au